ba ñu dàq ci vingt cinq mille sama ne ko dama am am na ko lay seet ma ne ko euh, waaw ma ma génn gisuma kenn kii la euh, ma génn gisuma kenn ma fekk ci wàññi ma ne ko noo tudd mu mun ma ne ko foo dëkk mu ne ma ngent ci ginnaaw police léegi mu romb ma ci waañ bi dugg ci salle bi continuer dugg ci néeg bi boobu jëloo jël nañ ko ba mu commencé même pas deux minutes fuyete na sama néeg bi yëpp laal lal bi teggi matelas bi deful une heure de temps ci gi. mu commencé palper kër gi. mu ñëw palper sama néeg man mi ma bàyyi ci waañ bi maa ngi ndékki te man moom tam moo ma tax ndékki heure boobu parce que moom laa bëggoon a xam fa la dëkk affaire yooyu. bu bàyyi ma ci waañ bi romb ma dugg ci néeg palper sama néeg bi sama greffage bi ma jënd ci taw cent cinquante jël sama euh, téléphone techno. plus cent mille francs yi ñu tegoon foofu yoo xamante ne versement la mu jël benn yoonam. maa ngi dugg ci biir mais dama damay jënd crédit sama nijaay laay woo wax ko am naa liggéey boobu la def waaw ma toog même deux minutes gisuma ko man ma génn xoo ko ci biti bi gisuma ko rek ma daw sama ne gis ko nu mu fóoyatee néeg bi duggaat ci néeg gisuma greffage gisuma xaalis d'accord boobu loolu kañ la après màggal la xale bi daal dafa ñëw par hasard rek ñëw sama kër daal di fëgg daal di ma damaa bëgg a jànq ma daal ne ko kaay toog ma daal toog si sama lalu vrenda bi ci bi ci peron bi mun ma man maa ngi bindoo trente mille dégg nga mu jox ma benn carte dante uh-huh. ma xool carte dante bi du moom uh-huh. man ko carte dante bi de du yow mun ma dama doon liggéey grass standing te récupéré gu ma sama kar d'identité croiser les bras yor carte d'identité bi ci loxoom waaw bi ñu duggee bay waxtaan mu jël carte d'identité bi dugal ko ci poosam. kaan mu daal di ma koy wan. ne ko ah ma sama yaay la. man ko sa yaay la mu ne ma waax mu ne ma moo ne ma naa yóbbu carte d'identité bi pour bu ma wàccee boo mënee ànd ak man nga xam sunu kër man ko loolu dara rafet na man ko sa yaay fu mu dëkk ma sama yaay mi ngi dëkk Madina Fall waaye man lam-lam laa dëkk man laa nekk sam papa sam papa ak sama yaay dañoo divorcé sam papa chrétien la sam papa chrétien la sama yaay mi musulman le mi ngi dëkk Madina Fall kii te man maa ngi dëkk Kawsara ma gis ko mu mel ni dafa am lu ñaan lu mu ñaan ko taf ci dënn bi léegi tamit daan ni ma chrétien laa uh-huh. waaye dama bëgg chaque quinze jours nga may ma damay dem église man ko wax nga dëgg de ndax nit kenn du ko xeebal diineem loolu du dara mun ma huit heures la ba dix heures mën naa sax ñëw simmee ko ma ne ko amul benn problème bi mu xëysee ma ne ko man amul jànq du ma defaral sama néeg ndax am naa saal am naa venda léegi sama jëkkër dafa nekk sama nekk yeewoogul bu paree dinaa la wan liggéey bi dinaa la sax jàppale te am na sama benn doomu jëkkër ku mag ko ne ci fleur yi di ko roose wan ka ginnaaw waaye comme euh, sas bi buy sotteeku da nga koy dégg uh-huh. mu xam ni sama jëkkër mi ngi sangu waaw waaw maa ngi sama biir néegu goro waaw xam nga fi ma wax ndax ñoo jàkkaarloo waaw ci la mbartal dugg sama néeg daal di uh-huh. jël sama daal di jël sama ñaari portable. Uh-huh. sama bos ak sama bu jëkk bu nekk à vingt et un la ñoo nuroo. Uh-huh. bi mu ko defee nag noonu daal di dugg mel ne kuy tonni mbalit yi nekk ci buntu néeg daal aw yoonu buntu kër ga tamit di tonniwaat beneen mbalit. sama doomu jëkkër bi moom gis na ko gis na ba muy génn yore peelu mbalit waaye dafa yaakaar daf koy tuuri wala dafay tonni ci ndeke booba jël na portable bi dugal ko ci poche am ba jël pile bi mu soloon pile bu jaune bi mu soloon takk ko ci. sama jëkkër génnee ci néeg bi fekk ma ci sama véranda a toog ci lal bi di defar sama doom mun ma soxna si ma ne ko ah, ana sama portable ma dugg ci néeg bi fekkuma ko fa ma ko man tamit ana sama bos nii lañ ci toll carte d'identité ba ma joxoon ma xool kooku muy 83 man maam carte d'identité bi ma def ndakate daf ko arnaqué comme ni ma def njaay dégg lool xale bu jigéen bi nga def ko day continuer dama ñëw fii ma xëy suba teel nii mu ci mbedd mi ne dafa bëgg liggéey fekk ma si bunt kër gi ma taxaw may sama bunt bi ma jël ko comme comme jànq comme bon waxaaleeg moom moom ngay waxanteel moom ngay liggéeyal moom ngay defal teel yëpp ndax man chaque jour si dikit bi laa yenn mu ne ma waaw mu commencé liggéeyam liggéey bi nag liggéey na ko liggéey bu gaaw man ma jékki-jékki mel ni ko am malaise gisatuma sax li ma doon jaay xamatuma ko ma xaw a boobu mu si kër gi ma dugg si kër gi woo xale yi wala boo duggee nga woowal ma sama turandoo nekkoon na génn man bi ma dugg see ci kër gi xale bi man leen mënatumaa taxaw de man damaa feebar depuis si suba ba léegi daal feebar naa il faut na ma dem fang beneen doom bi ci des ne ma kii de neena na du ndékki man leen lu tax du ndékk nit kay bu bë kuy liggéey si kër dina ndékk bu fekkee bëggul café de mburum bu wax ngeen jënd ko fonde wala lu mu bëgg mu ne moom tàmmul di di di lekk mburu café rek lay naan léegi xale bu ndaw boobu nga dégg noonu muy jooy mu ñëw di jël téléphone bi xale bi yoroon uh-huh. xale bi dax bi wax mu daan ne xale bi day wax waa kër gi ne ko waa xale bi day wax bu bàyyi xale man bi ma duggee ni may utal ndox uh-huh. boobu moom la daa di génn fekk xale bu ndaw bi nekkoon ci buntu bikit bi ngóone mu ne ko dama jëndali ma tàngal mu ne ko dama jëndal ma tàngal maam ci beneen bitik kooku dem di ko jëndal tàngal maam te mu jël téléphone bi kii ci kaw comptoir bi jël xaalis ci lekk bi ak yooyu daal dem fekk ginnaaw téléphone bi samay PS5 ci woon ak samay trente mille bu daal dem moom yóbbu xale yi tamit ñu koy xool ci kër gi gisuñu ko ma ni ma laa di toog toog ba yaa ah, ma ni sama tróndóor ko dama indi ma sama téléphone ci bitik bi ki may yaay ki génn dem bi kon ñoom fekk ca boutique tàngal keneen ki génn dem di bi ci bi fekk fa téléphone bi waaye moom gis na tase naa moom muy dem daan na bàjjen téléphone bi new fu ma ne ko téléphone baa ngi ci bitik bi maa ko teg noonu ci suba ba tey falaa teg téléphone bi ndax boobu maa ngi déglu ca émission bi. xalaat la téléphone bi fa la nekk ci dikit bi di wax. ñu ne ma téléphone bi nekk. ñu daal di ñëw ñëpp ñëw ne ma gisuñu téléphone daan ne ma ana xale bi nga fi waxaale léegi da nga koy yónni man leen xale bi yónniwu ma ko. ma ni kii xool leen ko. ngoone daan ne dugg na si biir dikit bi. am na lu mu fi jël. ba ni ma dama jëndal ma tàngal. xale yi daw ba dikitu Xadi Njaay. noonu ñëpp génn ma génn daan ne leen. dem ba dikitu Xadi Njaay ñu ne ma taxaw na fi ba jënd fi tàngal ma am aj laaj ma indi ma ne ko indi amul mu dem dëkk boobu la def laa man nag bi may waxtaale daf ma ni maa ngi dëkk kër Péro Mbaye mi dëkk ci mi nekk raay bi. nu mu tudd mu ne. Péro moom Véronica la waxoon man ne ma noonu la tudd. naka. Véronica Véronica. Véronica. waaw daan na léegi moom mu ngi dëkk kër Péro fii ñuy jaayee sàngara si ca juuti ba. raay bi ci ci Thiès ci mel na fan. may dem fa ñooñu ne ma ñun amuñu fa. am tur bi ñun xamuñu kooku. ay sept heures et demie la fa ñëw huit heures avant dix heures. gis ngeen heure bi dix heures bi tàcc na ma ma dem. loolay lan ak lan lan lan ak lan lan lan sama téléphone la sama téléphone la jël. ak ñaata. jël sama xaalis. trente mille yi nekkoon ci portable bi. ci ginnaaw waaw bi ma bàyyi woon ci biir bi ci xaalis. ak samay pièces. moom police ba ñëppam fa. ku ah. ñëw. ne ñii mu sàcc leen ay iPhone ndax koñ bi sax am na kum ko fa defoon ak ñeneen ak ñeneen am na sax ndaw soo xam ne bi ñëwee nee na ko daal yi nga sol nii démb nga ñëw ak yére sàcc ko sama kër. yow man la sàcceeg léegi ñaata ña kañ la ñaata temps. man la la woon ba tey jii ma koy doog a gis le waaw. démb la. jàpp nañ ko. te téléphone yi mu daan sàcc dañ ko daan jaay benn waay bu nekkoon ca marché euh, Thiès ba kooku da daan jële téléphone yi ba mu doon téléphone yu baree bari yu ñu sàcc mu yóbbu ko Gàmbi jaayi ko fa. Ah, du ko jaayee fii walla bi ñu ko jàppee nag démb dañ ko booleeg benn policier euh, ni ko wool ki nga xam ne moom nga daan jaay téléphone mu woo kooku. policier bi teg ko ci Jakarta dem ak moom ñu joxante rendez-vous fenn recel bi ñëw. dañu ko woo ko jàpp am naa benn iPhone yi xew rek. Mhm. sàcc naa ko mu ñëw doon ko jël si nag waaw ñu ñëw jàppa ñu jàppaal waa ji. Euh, mooy euh, affaire bi Thiès la commissariat bi xam nu mu tudd. Euh, commissaire boobu ma nga tudd commissaire Thioub. Hmm. commissaire Thioub ak ay éléments am ñoo jàpp xale bi jàppale waa ji nga xam ne moo daan jaay jënd li nga xam ne moo di kii télé téléphone yi. am na ñu ko fa fekk. ñu baree bari ñëw nañu. comme ñii nii dama damaa jël ñetti nit. nii rek ah moom euh, tur yu mu doon joxe. waaw moo ko def exprès pour di joxe turu. ay turu catholique lu daan jóge pour ñu jàpp ne. pour ñu waaw pour nanax nit ñi rek. turam dëgg-dëgg wax nañ la wala da nga ko mënta wax. Mm, mun turam dëgg-dëgg wax nañ ma ko mais dama koo jàppul. Mm. dama jàppul turam Wow. dëgg mais Ndiaye sëy bu doy waar a ngi ëpp naa wax waaw. xam nga doxaan nit mun la nobbu ma la nga doxaan nit doxaan ko mun la nobbu ma la nga doxaan ko ba sonn mun dem yeew ko ba mu dëgër dëgg dëgër. fekk moom mi ngi doon am beneen relation beneen far woo xam ne mi ngi koy waaj takk ba far wi jàpp mois d' avril le avril nga liggéey ko ba le 9 avril boobu ñu may la ko. lii tamit war nañ cee wax am na kilifa gu mag gu xam ci réew mi. waaw situation bi mel ni mosoon na koo dal. ci sëy bi xam ne moom dara ne damay laaj dafa am benn waay boo ma ne dafa maa takkoon léegi ci kaw takk bi maam yu bëri daal laxasu na ci lu bëri laxasu na si fu affaire takk bi jaar yëpp mën naa la expliquer de léegi man maa dem ba par la am yu bëri feeñ man maa ko woo ma ne ko may ma baax mais moom daal mu bañ li tax mu bañ nag man xaw ma ko maam ba may xamante moom boobu maa ngi nekk xale ñuy dem daayra ñu fay gisanteeg ñoom mais mosuñu séq wax man ak moom léegi si laa jógee foofu ma dem yi bi ma sëyee noonu nag ba divorcé si la ma woowee gis ma ma dem benn programme mu gis ma fa bi ma fa gisee nag mu ne daf maa bëgg ma ne ko non man moom wax dëgg yàlla instant bi damay soog a génn ci sëy pareew ma euh, pour sax nekk ci benn relation léegi ñuy dox di dox ba jëmm jamono mu woo ma ne ma dama laa li ma la doon wax ba tey dama cee nekk ba tey ma ne ko waa baax na kon nañu essayé rek ma xool ba xam ci lañ essayé même pas un mois man maa ko woowaat téléphone ma ne ko wax dëgg yàlla mënu ma nekk ak yow yóbbuma sentiruma sama bopp si yow daal dama ko ko wax carrément sentiruma sama bopp si yow en plus boo ma ne mën mën mën mën naa nekk sa soxna daal dëgg yàlla pare ma pour sëy ak yow waaw muy première dàq bu ma ko dàq deuxième dàq bu ma ko dàq aussi dañoo dajawaat beneen programme mu gis ma toppaan ma wax a wax a wax a wax a wax ma ne ko waa baax na mi ngi essayé waat ñu daal di essayé waat xam nga man daal maa ko woowaat moom franchement même na ma ko waxoon laa ko waxaat yëgul ma sama bopp dara ci moom en plus daal amul aw ma benn amul aw ma benn cofeel daal ci moom boo xamante ne war naa mën a yàgg ak moom si laa ko dàqee mooy deuxième dàq bi si laa ñëwee bi ma ñëwee nekk di liggéey li may liggéey xam nga aw ma benn jafe-jafe musuma fi am sax far àdduna di dox di dox ba benn jour am suñu benn sëriñ bu fi ñëw seet suñu ma nekk fi trois ans mosuma fi am benn far am suñu sëriñ bu fi ñëw seet si ma ba ñëwee seet si ma ñu fii taalibe yi ni ñuy dajaloo noonu rek ak liggéey beeg yooyu am ku ma ci gis nag bëgg ma euh, ma laajte ñu ne ma moom tamit ku baax la te ci dëkk bi la nekk aussi yàgg na fi yàlla mu won ma loolu mu doy ma lool mu ne ma dina ko yeggee sëriñ bi fi ñëwoon seet si léegi ba mu ko ko yeggee sëriñ bi ne loolu de amul sax lu ñuy yàggal dañuy dem rek waxtaanee ay waajuram buñ daakooree ñu fas sëy bi ñu ne waaw mais kee moom ba tey maanaam déggan daan nañ déggante mi déggante bi mën nañ toog lu tolloog semaine wala trois semaines soog a déggante moom waa ji waxtaan ak samay waajur lu ma loo xamante ne nii depuis ba ma divorcé musuma ko def maanaam jox góor sama numéro waajur ci la ko woowee waxtaan ak sama waajur bu góor waxtaan ak sama waajur bu jigéen waxtaan ak samay mag ba ñu d'accord léegi moom moom waa ji mu des pour mu waxtaan ak waajuram bu jigéen waajuram bu jigéen na ko patientel tuuti patienté moom it mu toog di patienté man it may patienté mu ne ma woon dinaa jàpp dat mu ne ma avril bi dinaa jàpp dat ci avril bi ma ne ko amul problème ñu toog di patienté avril bi yeggsi si xam naa nag wax ji egg ci waajale bi mu eggee ci waajale xam naa aussi mu def lu muy def ki nga xamante ne moo ma doon bëgg fii ba ñu def démarche bay waajal takk un jour damaa woo ko bu ma woowati mu woowoon ma ko bu ma woowati mu ma affaire tàpp bi laa la wax dat le neuf mu ko sama yoon neewul ci loolu te bu fekkee da ngaa jàpp dat man affaire sëy sax pareetuma pour sëy ak yow sëy dégg wax dem nañ ba jour mhm. ko ko rek bu man na ka nga nobu ko mhm. munu ko mu woo waa ji ni ko bu ma woowati déglu ko. luy def trois ans ma toog sëyuma comprendre nga mu gis ku ma bëgg bu ko sëyeeg yow nga ne ma du ci dal daf maa bëgg a takk yërëm na ma suturaal na ma boobu ba tey bi ngi may toog te xam naa ne ku ma bëgg la. sama frère yi ku wax ma xuloog yow daanaka ñi ñi ci ëpp laa wax daaw ma tuddante ñoom parce que li ma doon wax teeyal teeyal que naan sama bonheur lañ ma bëgg a xañ waaw. du ma toog daanaka lu tolloo plus de trois ans ma bëgg ko toog sayu ma aw ma jëkkër xam nga foowu ma folowu ma lu ne daal may wax surtout affaire yi sam papa parce que moom it demoon na ba ne suñ see sax moom du ma maye ma mere sama papa ma ne ko bu mu mayewul aussi dinaa wuti samay ndijaay ñu maye ma ba jour bi ñuy dem di ñaani laa la wax du dërëm boo xam ne yóbbu na ko lépp sama famille ñoo ko def en même temps man yére yi ma sol sama jour takk lépp man maa ko jënd añ ma togg si jour takk lépp man maa ko def du war gar du dara loo xamante ne nii moom joxe na ko léegi nag bañ takkee noonu ba takk bi kii nag am nag ba noppi nag léegi nag si la mbokk yi toog xalaat ñu réfléchir ñëpp toog réfléchir ñu ne ah lii kat moom wax dëgg yàlla normalul parce que koo xamante ne nii nit ñëw na wax ak yow ba noppi ci benn weer bi nga bëgg fee bëgg nga ne bëgg nga fi keneen ba war a sëyeeg moom te ko kenn mësul a kaa xamal kenn mësul a kaa déggal c'est la affaire yi nag commencé luus commencé jug def suñuy dëbbal dëbbal ba affaire yi nag commencé wàññi ci man carrément nag léegi nag problème bi nekk que ni waa ji bu ma wooyee ma ko jël su ma messager duma ko tontu su ma wooyee duma ko jël bu ma messager daal duma ko tontu bu ma waxee moom xam nga. ma daal di koy woo ne ko sëñ mënta dem mënul dem baam ci durant neuf mois yooyu yëpp du ma yónni maam du du du dërëm sax bu ma yónni waaw yónni woon ma dara waaw léegi nag mu ne woon mën naa ko lijjanti moom maam bii bu mu ñëwee fii ma ne. bii bu ñëwee boo xamante ne moom dina fi ñëwee dina dina ma seet si daal ci lool ci tànk yooyu daal lañ nekk li tax sax waaw amatuma ci woon sago daal léegi ba ma toogee nag ba ne ko damaa bëggoon daal nga may ma sàmbar mu ne ma loolu lu ma ci dal defuma ko tey defuma ko ëllëg loolu rek laa doon laaj maanaam bu fekkee ne moom joxewul warugar maanaam seen kese la joxe yow nga bëgg a signé ko nan ngay def maanaam doon warugar la joxe nu mu toll mën naa koo yëkkati delloo bu fekkee dañ ne jigéen day simmeeku ko moom joxuma woon warugar cen doongu la ma joxoon léegi may laaj bu fekkee ndax yow cen bi la ñuy delloo pour nga simmee ko wala nan lay demee parce que moom daal